sëriñ Touba xaada lahu laaw maxtaara lahu ñi ngi ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom ñaar sëriñ Touba xaada lahu laaw maxtaara lahu nee na bis bu ñu àggee ba sama kër gi ñu sàkket ko sàkketi weñ am yoon wu ñuul kukk jaar fii ci sama dëkk bi sama xasida yi di wax ci jaww ji bu boobaa mbindeef yi danañu leen xaaj ñetti xaaj benn bi sama boroom dana ko fi sama boroom dana ma ko féeteeleel sama borom dama leen dama koy féetaleel ba ca des dana ko bàyyeeg tubaab bi te mooy seytaane ba ca des mu bàyyi ko fi muy nuru dara te du dara xasida yi wax ci jaww ji xëy na mooy rajo yi ak télévision yi wala axlam sëriñ bi bu ñu xoolee xaaj yi mu wax mooy ab murid saadex ak ab saay-saay bu bëggul dara ci lu baax ak ab naafeq boo xam ni li muy wane ci saahir lépp bëgg àdduna moo koy waral fi mu ne nag bu ñu xoolee ñiy tuddoo Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw muxtaarlawoo ñëpp dugg nañu ci xaaj yi yal nañu yàlla doole dimbale ci topp ndigali sëriñ bi ak bàyyi ay tereem te sor ak tubaab bi ndax daana ko moytuloo mu yi lu bari wala alam